jàppandal eh, li gaa yu baax yi ku leen liggéeyal yàlla fay la gaa yu baax yi ku leen di fàttaliku sëñ Tuubaa fay la te eh, lii ñu cëral sëñ Abdou Karim ah cërub sëñ Tuubaa ba lañ dundal sëñ Moustapha Bassirou Sadex ba moo ko tànnaloon sëñ Abdou Karim Mm, teg ko ci loxol sëñ Cheikh boobu sëñ Cheikh moo fi xalifa sëñ Abdou Karim Touré ah di dox ñu koy doxal ñu koy doxal ba sëñ Moustapha jóge fi sëñ Mountakha ne fi feddali ko ba mbir mi agsi ci sëriñ Abo mi waaw muy liggéey bu rëy boo xam ne li sëñ Touba wax ne daal eh, waqdi hawa ija na daamu fi xidmati wa hablahum maramo loolu yàlla na nu ci yàlla dugal yow suñ boroom ñu takk seen digg la wax saxoo di ma liggéeyal na nga faj seeni aajo liñ bëgg àddina ak àllaaxira nang leen ko defal ah te lii ngeen di liggéeyal sëñ Tuubaa kon nag bu ngeen ci jàppee ah na ngeen rafet njortu ne yàlla dina leen fay li ñaan daal mooy sëñ baa ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan seen bëgg seenu bëgg yàlla defal leen ko yéen ko xam nag sëñ Abdou Karim moom wax na ko ne ku ma liggéeyal yàlla dana leen defal loo xam ne dootu tàggoog yow da nga sa aajo dana faju say mbir dana jub te dara du ko mën a yàq loolu sëñ Abdou Karim moo ko waxal boppam ndax dafa jubóog boromam ndax dafa wax ne maa ngi bokk ci ñi nga xam ne lu leen soob soob ne yàlla. kon nag seen jëf ji sëñ Tuubaa seede na ko ma du Bassir seede na ko Cheikh Abdou Karim Touré seede na ko nee ko daal na rafet njot waaw ñu ngi koy ñaanal tey sàkku yàlla nangu ñaan yi. fu mu bëgg àgg daal moo ko xam yàlla na ko fi yàgg àggale ak yéen ñi ko jàppale yëpp ak bokki julli yeeg bokki taalib yëpp لمن كان لي بالجود وهو شكور نزولي وتأييدي ويسير الرداء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 ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant. yaakaar naa ne équipe bi fi ñëwoon semaine passée semaine bii jàll ñi fi ñëwoon ndaw ñi fi ñëwoon leeral nañ leen mbir mi ba am na ci ñu ñoo xam ne nii leer na ci seen bopp président Abdoulaye Sylla moom ñu bari xam nañ ko buñ ko xamul tamit xam nañ jëfam wala xam nañ way juróom mu góor muy docteur Sylla kooku mooy way juróom am na fii sax ay gox-goxaat yu nekk fii yoo xam ne nii installé na fi xëccal na leen ndox branchement d'eau yu bari am na ay réalisation yoo xam ne lu baree bari def na ko fi. ba tax na kooku la moo mooy samp ndëndëm ci élection yi di ñëw élection yi nag pour nga bokk ci daa am noo ciy bokkee daa am ay préalable yoo xam ne nii faw nga faw nga faw nga jàll ca man ma tuddee ko ay préliminaire mu tudd mu tudd parrainage moom la ñuy wax parrainage yi faaw nga am benn lim boo xam ne ni da nga koy matal loolu mën laa dimbali nga bokk ci mbër yi war a bokk ci élection yi di ñëw incha allahu rabbi ba tax na gox yu fasantikoo yi nekk fii yëpp am nañ fi représentant fu ci mel ne nindi waalo ga fii am nañ fi représentant dem ba Kéré Mbay Kéré Ndaw Tindoodi feex yooyu yëpp gox yu fasantikoo yooyu yëpp am nañ fa ndaw yu ñu fa taxawal diñ ci wéyal liggéey bu am solo ba tax na li ñu ñor ci mbir mi daal mooy Touba ñun Touba ñu yor sëñ bee ñu ñor lu suqali dëkk bee ñu ñor lu suqali suñu ay yaay ak suñu ay papa suñ ay mag suñu ay rakk moo ñu ñor ba tax na xam naa ne ñii samay ndaw yi dinañ leen gën a leeralal mbir mi comme que waxtu wi dañoo xaw a tënk nga xam ne dañoo bëgg jublu ci parrainage bi ndaxte parrainage bi mooy étape bi njëkk bi tax ñu jàll ci mbir mi nag ba tax na war nañ ci am taxawaay bu mat sëkk surtout waa Ndindi waa Ndindi waalo ga gis nañ seen taxawaay ñu ngi leen ciy gën a ñaax ñu gën cee góorgóorlu képp koo xam ne nii am nga koo ci mën a waxtaanal ba mu rejoindre projet bi incha allahu rabbi dina gën a mën a yokk mbir mi ba tax na parrainage bi nag dafa xaw a spécial li may faral di wax rek parrainage bi moom képp koo xam ne nii am nga yéene parrainel ñu te boo ñuy parrainel liñ lay ñaan rek boo pare joxe sa carte ba ñu jël say filiation ba pare bul joxaat keneen sa carte bu fekkee da nga am yéene parrainel ñu ba pare bu ñu demee ñeneen ñëw. nga laajaat la sa carte nga joxaat leen ko bu bu ko defee di nga ñu indil ay problème ñun amaana bëggoon ngaa def lu baax ba ba ñu lor ñu parce que ñooñu bu ñu njëkkee déposé rek ñun bu ñu déposé dañ koy rejeté ba tax na loolu du doon ngëneel dinañu yàqal ba tax na képp koo xam ne nii bëgg naa parallèle président Ablaye Sylla mooy feuille bi nga xam ne nii moom lañ def numéro un ku ko gis nga xàmmee ko feuille bi mu ngi nii numéro un bi lañ ci def parce que nit ñi dañoo bari pexe mën nañoo ñëw sax wan la benn numéro wan la benn feuille doo bàyyi xel ci numéro un bii ñu la kii kat président Abdoulaye Sylla la doomu réew mi la doomu Touba la fii la juddoo way juróom fii la nekk kii mooy seen mbër waxi wax wax ay def ay pexem ba ngeen parallèle ko te donte du moom boo leen ko parallèle parallèle ñu mu njëkk ñoo dugal ñun buñ dugalee suñ liste dañ koy rejeté loolu muy indi ay jafe-jafe ba tax na képp ku décidé parallèle benn candidat na yam ca kooku nga lawaay na ci nga yam ca kooka ndaxte bu parrainage laatee keneen rek dana fi indi jafe ba tax na parrainage bi dafa technique moo tax ñu ànd ci équipe bii am ay équipe yu baree baree bare formé nañ ay équipe de sept équipe de sept yoo xam ne nii mën nañ ci mën nañ plus de dix groupes dix groupes de sept dis groupes de sept yooyu lañ lañ doon liggéeyal fan yii yëpp moo tax moo ñu xawoon a tënk parce que dafa am ay spécification yoo xam ne nii faw nga leeral ko ci bopp ndaw ñi ñu mën koo xam di ci bàyyi xel ba tax na ñun lu productif lañ bëgg bëgguñu quantité qualité lañ bëgg. donte ñu am vingtaine de personnes boo xam ne ni qualité la comme ñi yéen ñii fi toog moo ñu gënal ñu am milliers de personnes yoo xam ne ni ay quantité lay doon maanaam du la jariñ dara parrainage bi dañ koo bëgg def ci teey ci dal ak ci xam ànd ceeg équipe bu am solo boo leen gisee t-shirt yii nii ngeen gis équipe bu parrainage bi ñoom ñoo koy faral di sol dañoo am équipe boo xam ne nii mooy surveiller parrainage yi nga xam ne nii contrôle lay doon double contrôle lay doon bu ñu defee parrainage yi par jël say filiation sa sa sant sa numéro carte électeur sa numéro carte d'identité date d'expiration carte d'identité bi nga signé boo signé ba pare dañuy jël sa numéro téléphone photocopier carte photocopie carte d'identité bi recto ak verso bi scanner code QR bi nekk ci ginnaaw boo leen gisee t set bii nii am na benn code bu nekk ci ginnaaw moom la ñuy scanner rek balancer ko suñu suñu suñu suñu gars yi nekk ci serveur bi ñoom à dinañ ko mën a vérifier loolu nag liggéey bu am solo la. ñu ànd ci ak nit ñu xarala bëgg def parrainage bu spécial parce que parrainage bi fi doon am dafa dafa dafa dafa chamboulé wu kenn xamul kan mooy kan ba tax na listu yu bare bari moo ngeen gis ñu ko doon rejeté di ko rejeté ci ay détails yoo xam ne nii nit ñi faw nga leeral leen lan mooy mbir mi nan lay doxee organiser ko bu ko defee yàlla suñu borom mën na la cee suturaal ñun nag ci loolu lañ nekk ànd ceeg suñu président Abdoulaye Sylla mu jàngal ñu wa wan ñu yoon wi ba tax na li mu yéene ci askan wi moom ñëpp xam nañ ko koo xam ne nii amoo amoo dara bànqaasu état def fi li nga xam ne nii nit ñi sax dañ lay lekk wala lu raw li fi état di def kooku teg boppam la amaan bu buñ amoon ñeent ñu mel ne moom waxuma la suñ dëkk bii di Touba de waaye Sénégal dina jóge fii mu ne fii mu toll ci ay jafe-jafe xam naa pour bañ a guddal rek ma jox sama mag ji nga xam ne moom laa àndal muy Maodo di suñu mag ju baax a baax a baax a baax moom ànd ñun ci liggéey bi am xam-xam bu mucc ayib boo xam ne nii mi ngi ñu koy dolli ñu jox ko mu sànni ci kàddu. ñu ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant yéen ñëpp tey nag dañ fee ñëw pour waxtaan ak yéen waxtaan ak yéen mooy tolluwaayu réew mi ngeen nekk ay jigéen doon ay jàmbaar lool te saa yuñ tolloo ci waxtu wii rek politiciens yi daw wut si leen bu jàllee ñu wan leen ginnaaw. ñu yoon ay ndaw nag ñun dëkk ci dëkk bi juddoo fi yaroo fi di wax ne état yooyu nga xam ne ñooy ñëw ci yéen saa yu élection jotee ñu soxla leen ngeen fal leen te buñ faloo fàtte leen. loolu dafee war a jeex kan moo ko fi war a jële kii ñu leen di wax muy Abdoulaye Sylla dëkk ci réew mii doon doomi sénégalais waaye doon doomi Touba lu tax état yi bu ñu faloo bu ñuy falu ñëw Touba buñ faloo fàtte waa Touba. lu ko waral te pourtant waa Touba ñooy fal de surtout yéen jigéen ñi électoral bu ngeen dem yéen a ci man waaye ku falu fàtte leen Ablaye Sylla ne loolu dafa war a jeex Touba état bu fi mas a jaar musul am ministre pourtant ay intellectuels ngi fi ñoo xam ne seen njàng na ko ku mel ne Ablaye Sylla mi nga xam ne daal liggéeyal boppam tey ba am li am mu ñëw nekkoon kon danaa dog bu mu gàcce yi ci lan ndax gi ñi nax jigéen ñi. waaye nax yi ñi ndax naw ñi loolu dafay war a jeex yéen ñi nga xam ne yéen ay fal nag te yor seen i carte politique bi ñu leen daan politique di leen nax loolu yéen a koy dindil seen bopp mooy ku ñëw ci yéen wax leen lim man waaye yéen ngeen wax ko lim li li ngeen man mu taxaw ca ngeen jàppale ko Ablaye mii ñu leen di wax nag facile wu ñu leen fee wax loo xam ne bu ñu leen ko waxee ba noppi du ko def ndax ay jëfam daa jiitu campagne bii wala parrainage bii ndax soo dee murit di yewoo fii ci dëkk bii nii dëkk ci dëkku Serigne Touba bii boo demee ba ca jumaa jee tey jii nga sukk ñaan ci barabu Serigne Fallou mais nga xam ne tey doomi Serigne Touba la nga siggi xool barab ba na mu taaroo ñu ne la kan moo ko fi def nga ne Abdoulaye Sylla mii ñu leen di wax kooku boo jullee war nga koo ñaanal booy jàppale war koo jàppale te xam na yéene ci dëkk bi waaye boo demee ci barabu Serigne Sidi Muxtaar bee sukk fa ñaan siggi ñu ne kan moo def lii ñi ne kat Abdoulaye Sylla la ñu ne fan la dëkk ñi ne Touba kooku kuy jàppale war nga koo jàppale fee nga xam ne mooy Baxiya mbaar mu bees mi nga fa gis nga xam ne way dawle yi ku fa dem yóbbu fa sa mbokk am nga dem di fa dallu moo ko fa def ngir dimbale jaam ñi ndox mi am na ci quartier périphérie yoo xam ne Ablaye Sylla loxo mi yegg na fa ba ñooñ am na ndox électricité bi def na ci wàllam ba koñ yoo xam ne lëndëmoon na fexe na ba mu leer kooku nag am na programme yéen ñi nga xam ne nag yéen a nekk ci dëkk bi te bëgg ku leen jàppale bëgg ku jàppale seen koñ bëgg ci jàppale quartier bi ngeen dëkk ngeen am ay financement ak ay groupement yu ngeen liggéeyee da ngeen di fexe jàppante ak Ablaye Sylla ngeen nekkal ko fii fas yéene koo parrainer jox ko seen i carte ab Ablaye Sylla nekkal leen fii dit parce que olof day wax ne koo nekkal ci naaj bi mu nekkal la ci ker gi yéen nag bu ngeen nekkalee jàppee Ablaye Sylla nekkal ko ci naaj bi Ablaye Sylla dana leen nekkal yéen ci ker gi loolu lañ fas yéene woon ñëw faram fàcce ko fii waxtaan ak yéen xam ne ministre waxuma la ministre waaye président daal la république yayoo a Touba ndax ku falu fi nga faloo ku ñu folli fii nga folli koo kon ñi ngi leen di ñaan di leen tàllal loxo xam ne doomi Touba moo jug tàllal leen loxo politique nag boo koy door fa nga dëkk ngay commencé doomi Touba la si la mooy baayam dëkk fii ci corniche su Daara Jolof oto yii nga gis bu màggal Touba jotee li ñuy perte ci économique xamoo nu mu toll dañuy bàyyi seen lépp ñëw jàpp ci màggal gii nii di sëkk fi nga xam ne am na nay taataayu ndox ak lépp ngir Serigne tubaa rek te Serigne Touba rek tax kuy def loolu ci ab dëkk nag te dëkk ca dëkk ba dem ba nga xam ne nag réew mi ñor na la mu xool jafe-jafe réew mi askan wi li ñuy dund mu ne lii foog mu sensé danaa taxaw xeex ko képp ku dëkk ca dëkk booba war ngaa taxaw jàpp ci combat boobu noonu kon ñi ngi leen di ñaan yéen ñi nga xam ne yéen lañ fekk si fii tey ci ndindi tàllal nañ leen sunu loxo tey fas yéene ànd ak Ablaye Sylla ci combat bi nga xam ne moom la ñu mane pour matal parrainage bi ñuy laaj dem ci campagne yi dem ci euh, pré campagne bi dugg ci campagne bi def suñu campagne bu ëpp ñu mu yëpp yàlla may ñu ndam ak Serigne Touba mi ñu yaakaar àdduna ak alaaxira ñu ngi koy ñaan loolu lañ waxoon ne kàddu yi dañ leen ko jottali ñëw fasante ak yéen kóllëre te liñ ci wax incha allahu rabbi bu ñu ko faxantee fii fasante ko góor mii ñu fekk si fii su nawle la dara lu ci sensé amut incha allahu rabbi di leen di ziar yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant kuréel kër gi nga xam ne ni taxawal na ko muy ECOTRA moom laa leen doon wax sama njëlbeen ni wax ECOTRA googu dañoo commencé am ay jafe-jafe looloo aral sabab bi nga xam ne ni mu bëgg a bokk ci ñi nga xam ne ni ñooy xëccoo réew mi yëngu-yëngu yooyu ñuy yëngu suñ secteur boobu ñu nekk muy secteur BTP di secteur privé national muy entrepreneur bu mag di employé ay sénégalais ndaxte jaamu yàlla mu mënta weesu nga am ay xéewal mënoon koo jagleel ci leneen ne sama xéewal yii ma yàlla jox joxuma ko man kese dama ko jox pour ma dimbali ci jaam ñi moom taxawaay boobu la am ba tax na lool moo moo sabab mu créé entreprise bi ñuy wax Ecotra mooy matériel yi fiy ñëw ci màggal gi bi mu ko créé nag vingt ans ci ginnaaw dañoo xool am taxaw seetlu bu ñu def ci ñetti at yi jàll ne secteur bi nga xam ne nii ci la ñu nekk di yëngu di ci employé lu toll ci 2000 sénégalais mi ngi commencé am ay jafe yoo xam ne nii ñi ngi koy commencé dund loolu nga xam jafe-jafe yooyu nga xam ne nii suñu ay gouvernant moo ñu ñoo ñu ko teg moom lañ bëgg mu dakk moo tax ñu créer benn association patronat association patronat bi nag li ko tax a judd mooy entreprise yi euh, marché public yi ñuy jël di ko jagleel entreprise étrangère yi maanaam waa bitim réew ñi nga xam ne ni duñ ay sénégalais ay nasaraan lañ ñoo fiy ñëw suñum réew dikk fi ñu jagleel leen ay marché ñu jël sunub xaalis gañe fi sunub xaalis yóbbu ko seenum réew seenum réew yi gën a jàkk ñun sunum réew yi gën a dellu gannaaw loolu nag moo waral xeex bi ñu ne entreprise ñu ne entreprise yi nga xam ne nii ñoo nekk Sénégal ay sénégalais moom leen ay sénégalais di fa liggéey ñooñu war nañ leen jox seen ak seen yelleef loolu moo waral xeex bii moo tax entrepreneur yi nga xam ne nii moom la bokkal kuréel euh, wet googu ñoo dajaloo créer association patronat boobu dippee ko club C50 pour cent de préférence nationale. bi ñuy door a door liggéey bi nag mission économique la woon ndax ñun si secteur privé bi lañ nekk moom laa leen doon wax léegi ñu fépp fu ñu dem ci gox gox gox yi fasantikoo yi gox goxaat yi ci Sénégal ñu taxawal fa ko la ñuy wax kër C50 ndax kër C50 googu day permettre suñu yaay yañ fa fekk suñu bàjjan yi suñu tànta yi bàjjanu gox yi maire mbootaay yi ndaw yi ak ñëpp ñoo xam ne ni am ngeen ay yitte yoo xam ne ni bëgg ngeen cee yëngu te amu leen koom bu leen ci yeggale ñu dimbali leen ci taxawu leen ci loolu moo waraloon mission bi biñ ciy dem nag dem nañ ci fu baree baree bari fépp fu ñu fa dem rek fexe nañ ba fa taxawul fa li ñuy wax kër C50 am fay représentant nag yoo xam ne ni ñooy jàppale les femmes de développement ñi nga xam ne ni dañoo wàll war a yëngatu ci wàllum transformation ñiy defar ay eau de javel di defar ay jus di defar ay leneen ak leneen ak leneen dañ lay jël formé la ci biir kër gi day am école kër gi am ay formateurs yoo xam ne nii dañoo dañ leen a tàggat bañ mucc ayib ndaxte mbir mi dañ ciy ànd ak ay nit ñu xarala ñoom ñoo lay jël boo ñëwee ci kër gi jooytu fa sa ay doléance intégré biir club bi ñu jël la tàggat la ba nga mucc ayib jàngal la ndax nit ki kat bu ñëwee rek diis la ay soxlaam boo ko encadré wut ci yëngu-yëngu yooyu mu bëgg a yëngu amaana lam ci bëgg a def mën naa seey ndax boo amee projet ne man kat lii laa bëgg yëngu ci wàllum poulailler wala wàllum élevage wàllum agriculture wàllum commerce bépp bànqaas boo bëgg yëngatu rek dañ la ciy tàngat tàggat ba nga mucc ayib ndaxte amaana nit ki boo bëggee yëngu ci dara boo ci amul xam-xam rek mën ngaa am ay fanq fànq ba tax fànq fanq yooyu dañ la ciy jéem a dimbali dimbali gi ci la ciy dimbali mooy dañ la ciy former ba nga pare booy dem nag day am ay mécanisme de financement yoo xam ne dañ koy teg en place mooy répondre ci problématique gu banque yi nit ñu sonalee mu doon des prêts à taux zéro yoo xam ne nii pre yoo xam ne nii bu ñu la lebelee 500000 maanaam 500000 ngay fay loolu ñuy répondre ci li ma leen doon wax léegi problématique gu banque yi nga xam ne nii dañuy ñoom banque yi du ñu lebal ko amul xaalis ñi nga xam ne ne ñu am xaalis dañuy lebal mooy milliardaires yi ak millionnaires yi yow boo ñëwee bëgg leen a leb dañ lay laaj ay garantie li ci gën a doy waar mooy boo leen lebalee cinq cent 500000 boo lebee 500000 ci banque yi amaana 800000 ngay fay wala 1 million loolu nag lañ fi bëgg a jëlee. loolu problématique yooyu noonu nga xam ne nii moo am ci réew mi moom lañ fi bëgg a jëlee fexe ba def ay mécanisme d'investissement ñuy investir suñu femmes yi suñu yaay yi suñu mag ñi suñu rakk ñi jàngal leen bañ mokkal ñu jébbal leen ko bu ko defee investissement yooyu dinañ ci mën a fond genre fond de roulement lay doon boo leen fayee ñu ñu jébbalaat ko keneen noonu lañ ko buggoon a taxawalee loolu nag dañoo dem ba ci biir xam ne am na yenn yoo xam ne nii pour nga taxawal ko faaw nga liñ am li ñuy wax appareil de l'État ndax état bi loolu sax ñoom la waroon ñoom la war ña ngi koy def am na luñ ci teg waaye nañ koy defee daa gàllu góos maanaam daa féeti côté féeti côté gam féeti côté mooy am na institution yoo xam ne état moo ko teg en place ñu war lebal nit ñi mais lebal biñ lay lebal daa mel ne ay lebalu partisan la maanaam ñi nga xam ni ñoo leen di jàppale ci wàllum politique ñoom lañuy ñuy lebal bàyyi ñeneen ña muy ay mbir yu day waar loolu yëpp dañ ko fee bëgg a jële loolu nag pour nga jëlee ko fi faw nga am li ñuy wax appareil de l'État faw nga téye dëkk bi loolu moo tax entrepreneur yi bi ñu dajaloo seen biir ñoom ñu ne échéance électorale yii di ñëw dañ cee bëgg am mbër te mbër mi du kenn ku dul le président Abdoulaye Sylla loolu moo sabab candidature président Abdoulaye Sylla muy une demande sociale maanaam nit ñi ñoo ko porté ñoo bëgg ne ñun ki ñu bëgg mooy kii yërëm askan wi ki ñu bëgg mooy ki nga xam ne ni def na fi dara balaa moo nam ma wut dara kooku lañ bëgg ki ñu bëgg mooy ki yërëm askan wi ki nga xam ne ni dina dimbali askan wi ki nga xam ne ni am na vision ci société bi xam na ni ñuy développer la politique de l'emploi maanaam nan lay fexee ba ndaw réew mi yëpp amum xëy amaana ñun ndawum réew mi yëpp ku ci amoon yëngu-yëngu jamono yooyu yëngu ba nga xamee ni di nga xam ne lii kat weer wu dee wala lii chaque semaine wala lii chaque jour dinaa ci am nangam bu boobaa jafe-jafe yu bari dina dina fi jóge suñu doom yi suñu mag yi suñu rakk yi di dugg ci gaal yi wala suñu suñu suñu mag yi suñu rakk yi nga xam ne ñu ngi agressé di def naka suñu noonu yu baree baree bari dina fi jóge ba tax na loolu moo nekkoon vision président Abdoulaye Sylla mu war koo amal ci secteur de l'économie yi ŋànk économie dëkk bi yëpp am nañ ci ay vision yu xóot a xóot a xóot yoo xam ne nii incha allahu rabbi bu ñu amaatee occasion toogaat ci campagne yi incha allah bu ñu franchir état bu bi nga xam ne nii mooy les parrainages dinañ leen ko gën a faram ba mu leer ci bopp ñëpp li li ma leen di bëgg a wax rek mooy ci gàttal président si la seen doom la seen mag la seen rakk la la ngay dàq nag kéwal bu jëm àll nga dàq ko mu dugg ci kër gi moo am solo parce que boo leen fi falee beneen président de la république suñuy jafe-jafe parce que mënoo leen fee fal ku dëkk Louga wala ku dëkk Matam wala ku dëkk Bambey wala ku dëkk beneen gox boo xam ne ni bokkul ci suñu gox bëgg mu saafara suñuy problème loolu mën na ne parce que xamuñ suñu ay yitte koy saafara amaana bu ñu ñëwee dañ fexe ba dig leen def leen nañ leen doon def rek naxati ba am liñ bëgg waaye bii yoon nag moom yéen yéen a téye seen destin ngalawaay képp ku ci choisir di def di votel nit na nga xam bu baax a baax li ngay def koo xam ne nii nanga nga nga choisir ki yërëm ki yëg ki nga xam ne nii boo gestoo xam fa mu dëkk loolu dafa bokk ci méthode yi nga war a jël en compte pour choisir ki nga war a teg sa boppum réew dafa am solo ba tax na Ablaye Sylla kat ñi ngi koy méngaleel na lim fi def sax am na ñoo xam ne ñu naan la lim fi def sax ci dëkk bi état bi def ko fi kooku nag am na fi way wudul fay ba tax na kooku daal ñun waa Touba moom lañ bëgg àndal yóbbu ko incha allahu ba pale nga xam ne moom moo xam suñuy saafara moo xam suñuy aajo moom moo xam suñu ay yitte moom moo ñu doon jàppale ba nga xam ne nii amul dara loo xam ne nii liyee nañu ak moom muy obligation mu lu ko war ak ñun di ko def te yàlla tax kooku bu amee loo xam ne nii da ko warloog ñun amaana dina ko defee nu kawe suñ jort incha allahu rabbi ngeen jàppale ko bu baax a baax niñ koy jàppalee nag fii ñu tolluwaay bi jamono mooy parrainage yi parrainage nag mooy dama bëgg diw doon candidat waaye diw doon bul mbër waaye dañoo bëgg mu doon mbër na muy doonee mbër nag na ko mën a xeexalee ba mu doon mbër nag mooy sa carte électeur képp gis fiche bi ñu def ci fiche un mooy fiche parce que fiche dañ ko numéroté moom numéro un mooy fiche bu ko defee képp koo xam ne bëgg na koo jàppale mu bokk mbër yi nga xam ne nii moom la ñuy tabb 2024 da nga koy parrainé noo koy parrainé sa carte électeur ngay jox suñu ay ndaw bu ñu fi ñëwee ci fiche un bii ñu remplir say filiation nga ñu jël photo bi recto verso envoyé ko parce que dañoo teg ay plateforme yu am solo en ligne yoo xam ne dañuy contrôler melo parrainage parce que am parrainage u quantité soxlawuñ am ay parrainage u qualité lañ soxla maanaam am 2000 personnes yoo xam ne nii leer nañ ne buñ ko yóbboo dina jàll moo ñu gënal fuuf ñu am 100000 personnes yoo xam ne nii buñ ko suñu xel dal loolu day mat a bàyyi xel ba tax bi nag képp koo xam ne nii. am nga yéene paraneel ñu lillaay wa rasuli ñu ngi ñaan keneen ku fi ñëw di def defi pexe bëgg nga paraneel ko xamal ko ne ko am naa ko ma paraneel ba pare parce que boo ko defut kat ba paraneelaat ko bu ñu njëkk defal ñu yàqal la nga amoon yéene defal ñu ko da ñu faral yàqal ndaxte bu ñu dugalee suñu gis say filiation bi ñu koy ba tax la loolu luy mat a xel la chaque jour ci formation yi nga xam ne nii groupe yi nga xam ne ñu leen di former ñu nekk ay ndaw yoo xam ne nii ñu dynamique lañ ñu engagé ñu dañ leen di bàyyiloo xel loolu ne leen képp koo leen gis rek ñu bëgg leen a parrainer li ngeen koy njëkk a wax mooy boo amee yéene parrainer ñu li laay war a soli yamal waaye bu fekkee dangaa ngaa parrainer ba pare jéggal nañ ndax bëgguñoo yàqal kenn loolu la ñu président si la tàggatee noonu lañuy bëgg a wéyalee liggéey ba tax na daal méthode de parrainage bi mooy mi ngi nii képp kuñ ciy jël sa parrainage dañ koy jël dans les règles de jël ko ba mu leer naññi ñu foto sa carte d'identité recto verso sa numéro téléphone parce que dañoo am plateforme en ligne yoo xam ne nii li ngeen gis suñ caméraman bi sol ci ginnaaw am na benn code QR code QR boobu bu ñu ko scanné rek ci la ñuy balancer say sa sa photocopie carte ñi nga xam suñu plateforme en ligne bi dinañ ko mën a contrôler ba xam ñi bind juumuñ ci benn wala yu dem noonu ba tax na li ngeen ñu mën a dimbalee mooy noonu tolluwaay bii ñu toll moom li ñu soxla mooy ak carte électeur nga xam ne dinañ mën a matal matal ko nag ci anam yu sell yoo xam ne ni dañ ci am xel mu dal ba nga xam ne bu ñu demee fañ ko war a jébbal bu ñu ko fa jébbalee day jàll ci kàttanu yàlla suñu borom loolu daal moo waral moo sabab ñëw ñu ne dañ ñëw waxtaan ak yéen yéen ñi nga xam ne ni yéenay suñu yaay yéen ñi nga xam ne yéenay meeru mbootaay yi ngeen jàppale ñu ci loolu bu fekkee doy na leen bu soobee yàlla ñi ngi leen di tàllal suñu loxo ñu àndandoo liggéey suñu gox liggéey suñu dëkk ndax ñun lépp lu ñu am rek Touba lañ ko li may faral di ñaan rek képp koo xam ne nii am nga yéeney defal dëkk bi te yàlla saa boroom rek tax yàlla na la yàlla may ndam ñun foofu lañ ci toll. yéen mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant di nuyu bàyyi. si Sylla ak Malick Samb ñoom ak ab lay njaay sama doom yi ñu àndal soxna Faati Mbay fi nga tàmbalee rek fi nga bàyyee fi laay tàmbalee ndax la nga dàqee xewel mu jëm ca àll ba dàq ko mu ñëw ci yow te loolu nga wax ci wàllu politique man mii mosuma taxaw ci wàllu politique sama identité mosuma koo jox benn benn benn politicien dama daan toog ba wate jot ma dem wate ji waaye ñii li ma dégg ci ñoom gis ko ci sama bët ñu def ko te booba lii dikkut ñu di ko def ci mbiram social man loolu moo ma dugal ci lii fu ma dem dama koy wax di ko waxaat ndax yaakaar naa ne man sama baay Cerno Jóob moom baayam mi sax ma ci jóobam baay jóobam Ablaay Wàdd la ma daan la may wooye baay si suma baay politique fu ne dugg na fa fu dem na fa waaye man bu ma ko bu ma ko masaa wax ma ne ko man waaye politique sama sama mbir su ma nangoon maire Mbodj mii nekkan ga may nekkan kër wetu kër Njóoba Mbay maay topp ci ginnaawam ci politiciens yi waaye mosuma koo nangu lii nag politique la du politique ndax dañuy dimbali sunu bopp dimbali suñu doom ndax ki nga ñëw ki la ñëw ñëw ba sa kër ñëw wax ak yow bu ëllëgee mën nga ko woo doo ko jot bu ëllëgee mën nga koo bañ a gis kii nag dangay waaxu dem këram ay rakkam a ngi nii te ñi fi toog doomi kere lañ Ablaye Ndiaye a ngi nii toog Cheikh Ndiaye awatina ngi nii toog Malick Samb fi mu dëkk a ngi nii ak ñoom fii ñëpp doomi Touba doo nga fi ne kon ay nax man na cee bañ a am ay wor mën na fee bañ am te man luy caaxaan dugguma ca wax ji nag li muy bari bari bari lii ngànnaay gi mooy dantite yi dentité yi bu ngeen leen ko joxee pare neen leen man de yaakaar naa du ma leen gis ëllëg mukk di ruus ndax la ma tax a jógee sama kër ñëw ba ci yow wax ak yow nga wax ma la ma wax ma wax la li ma la wax duma ci dellu ginnaaw te duma di mukk nga ne ma mati jóob la nga ma waxal ndax ñoom ñii ci sama kanam lañ juddoo fi lañ màgge Baye saal bi muy gone ba léegi sunu kër dafay ñëw di ànd ak gone yii te booba moo leen ab personnalité fopp te bu ko neexan du ko def te da daan ñëw ci ñoom gone yee ko féeteeg mag waaye dafa ànd ak ñoom te magam ñun suñu daara jee lam fa def ndax bu ñuy conférence daaw nagu 700000 la fa indi ba mu jàllee indi na fa machine ab 300000 pour fóotal xale yi. ñaar fukki basan andi na ko fa kon bu nee lu ma wax dinaa ko def te loola ñu laaj ñu ko booba daal di te yuy laaj amut lenn amut da ko faa def te yàlla tax gàmm gii yetti nag diggante bi secteur bi seen loolu yi indi na fi nag indi na nag côté kër Thierno Diouf ñoom indi na ko nag ca daara ja te ni mu demee la mais su ko gënee na yëgee nag mu war a amee dina ko gën a yaatal dina ko gën a yaatal loolu nag laa leen di dëggalal loolu moom dama ne du ma ne dama cee teg sama bët kon bu ngeen ko jàppalee jàppale seen bopp mu jàppale leen jàppale boppam moom it maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen ñaanal jàmm di ñaan sa borom yaakaar ba tas